suñu valeur ñu lay gu bom waaw ndaxte dafa am dëgguma waaye waaye xeex ko ba man man li ma doon wax waaw li may d'accord mooy bu fekkoon ne euh, parti yi moo xam opposition la wala wala wala pouvoir la kum ci man doon nga tegal nit yi diine yi nee nañ kat ñun dañoo fas bu ñëwee suñu projet mooy jële fi laïcité bii def ko république islamique non non damay damay wax rek dama lay pose benn question dama lay wax ne loolu buñ ko bu fekkoon ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu opposition bi wala ñeneen def ko boobaa dana nangu ñun ñëpp mën a sóobu ànd a yéen te boobaa jàpp na sax kilifa diine yi ñoo leen jiite ñoo leen jiite politique ñoo leen jiite bu baax a baax ànd ak yéen waaye nag dañuy xëccoo loo xam ne dafa lalu ci àttey ay tubaab ci àttey tubaab la lalu lalu ci àdduna ñoom nag ñu féete leen diine ñu féetewu diine ak jàkka ja naka jekk noonu lañ mas a bàyyee ñii xëccoo àdduna ak seen nguur ndax damay daana wax ne xale généraux bu fekkoon ne dañoo bëgg pouvoir bëgg nekk bëgg bëgg nekk ci bi wallahi boobaa kon boobaa euh, ñoo ko jiite waaye ñoom soxlawuñ daray adduna mhm. ci pouvoir adduna muy sëñ Muntaxa Si muy sëñ Babacar Si ak ña mel na ñoom dara daray adduna ndax day xam nañu xëcc adduna leen ku man sa morom duma lay doon te loolu taxu leen yëkkati mhm. kon ñoom la leen yëkkati mooy seen diine ñu nekk ca léegi nag fi may waxee ne waxuma kenn bañ a politique wàllu diine dama ne wax aaye yi ngi interprété xam mhm. interprétation la wax interprétation la wax ndax nit mënoo jël ay alxuraanu karim ngir faral sa leader politique moo xam parti wala opposition la interprété ko ñun borom ña jàng day borom xam xam nañ yow wax tegu ko fenn loolu laay wax ne nañ moom collectif moom koy def jikko lay doon te jikko yu lislaam moo ko njëkk a digal mooy makaarim axlaaq jikko yu rafet mhm. mooy waroo fen waroo xaste waroo tiriyan waroo lekk alalu jàmbur waroo jël àqi jàmbur loolu moom diine ku njëkk digle man côté boobu laa bëgg waaye waxuma ne diine bu mu ci dugg aaya laa wax ni ñu ko interprété ak hadis yi ak xis ak xisa yi histoire yi di ko solal mbubb nit loolu lay wax ne lu dansé la. waaw foofu ma leeral tuuti rek parce que am na ku wax ba tudd euh, euh, Modave ci pa ci Pastef <laughs> mu am ci yeneen parti yoo xam ne mu ngi ciy juddu. man personnellement dama koy rafetlu parce que xam nga lu tax ñi ñi jàppee ni ay nitu diine dañ leen a mës seppi ne leen dem leen ngeen toog ne yéen ñu leen soxlaa rek mooy bu weeru koor jotee ngeen ñëw firin nit ñi waxal nit ñi ak yooyu noonu mënul leen bokk ci liy defar société bi mu am ay parti yu juddu yoo xam ne dafa am ñoo xam ni dañu ne mhm. ñun li ñuy tabax mhm. ëllëg dañ ko bëgg a tabax boole ko ak donc ak daara yi boole ko ak doomu daara yi bëggatuñu mu doon rek politique bi ngay wax laïcité ki jàng nasaraan ki mën a tekki ay ay ay ay code ak i loi moo ciy bokk mhm. dañuy indi ki nga xamante ne moom diine lay tekki alxuraan lay tekki loolu la xam mu ñëw bokk ci mbir mi mm-hmm. ndax dañoo soxla xam-xamam suñu waa xaaral xaaral xaaral ma daaneel foofu man personnellement man mm-hmm. personnellement mm-hmm. ak lu ma doon surtout euh, Cheikh Omar Foutiou doon surtout euh, Thierno Souleymane Baal doon surtout Cheikh Sëñ Touba man duma ma Sénégal ñu def ko pays islamique loolu man du sama préférence parce que réew la boo xam ni même bu ñu fekkente ne dañoo am minorité boo xam ne bokku ñoo moom diine danoo bokk ci réew bi mhm. réew la boo xamante ne danoo am culture muy sunu aada même bu fekkente ni diine da koo dàq dafa bokk ci ñun. Mhm. diine dàq damaa jàpp ne waaw dama jàpp ne waaw ma ma daal culture culture bi sunu culture aada parce que am na ñoo xam ne gëmuñu gëmuñu yàlla am na ñoo xam ne gëm nañu yàlla duñu ay jullit ay ay catholique lañu am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla yeneen ni suñuy maam la ñu gëm ak yeneen ni yeneen lañu gëm mm-hmm. pays laïque boobu te Sénégal tey mënuñu ci dellu ginnaaw mhm. ndaxte li tax mënuñu ci dellu ginnaaw mooy dañoo tabax suñu dëkk autour de laïcité boobu muy une majorité bu tolérer une minorité muy une majorité bu accepter vivre autour d'une minorité maintenant laisité bi dañuy xeex pour améliorer ko parce que da cee am ay loi yoo xam ni bokkul ak sunu identité comme ay loi sur l'homosexualité ay loi sur yeneen yeneen yoo xamante ne mhm. ñun teg nañ ko ci table bi dem seeti kilifa diine yi wax leen sunu vision ak sunu mbëbët. Mhm. parce que nag nekkuñu coalition rek bu bëgg a jël nguur gi uniquement pour jël nguur gi mais quant nag ñi nga xam ne dañuy jël ay aaye arxuraan di ko firee man xam nga duma ko def ndax sama arxuraan sorewul. Mhm. mais ki nga xamante ne arxuraan la am muy ndëgër laayam moom moom la am moom lay teg ci table man xëy na dinaa la indil. samay code électoral indil la samay loi indil la leneen nit ku nekk xëy na li mu jàng mhm. ci loolu la mën a xëy na sukkandiku mhm. pour leeral waxam ak gis-gisam loolu du ma doo ci mën a généraliser ay nit pour pour pour juger leen ci li ma mën a xam rek mooy nañu liggéey ay kilifa diine yi ñu nekk ci diine ji ak ñi nga xam ne ñoo ne ci politique bi parce que nag benn lañu mënoo ko def séparé mhm. mënoo séparé politique ak diine ndaxte loolu moo waral Sénégal egg fi mu egg nii ci perte de valeur parce que dañu ne ñu nekk ci diine bi dañu ne ñu ne nit suñuy jàkk bàyyi ñii ñu ne ci seen doxal mais ñii loolu ñuy doxal dafa am njeexintal ci jàkka yi parce que loi yi ñuy teg ak ak ak yi ñuy traité tey dëkk dëkk dëkk bi yàqu-yàqu yu bare yi mu am mais li tax kilifa diine bu ñu ci dugaloon seen loxo ca booba ne du ñu nangu du ñu nangu lii du ñu nangu lii ba ci suñu télévision yi malgré que dëkk laïque lañu ça ne veut pas dire dëkk laïque lañu dañoo war a accepter. pourtant ñoom jéem nañu ñu ñuy indi loo xamante ne bokkul ci suñu ay culture di ñu ko imposer ba tey yow da ngay seetaan télé yàgg sa ay njaboot da ngay ruus am na seen yoo xam ne doo ko seetaan parce que loolu nag ay kaddu la yoo xamante ne kilifa diine yi wala bokk ñi nga xam ne ñooy militer ci parti yi te ñoom mbubboo seen diine ñoom ñoo koy xeex ñoom ñoo ne dootuñu yem ci suñuy daar ak suñuy sijaade dañuy ñëw ci biir parti yi suñu diine suñu dëgërlaay suñu xam fexe ba xeex ba bu ëllëgee ñii ñu àndal bu ñu jëree réew mi ñu mën a teg ay loi yoo xam ni dafay nduroog suñu identité loolu dañu koy encourager. ok loolu la oui pour la laïcité mais pas tout toute la laïcité. moi je suis pour loolu de dàqu ma loolu de xoolal euh, soxna Maimouna dàqu ma diine politique. yow maa ngi xaar ba nga yëkkati sa loxo problème bi yëpp yàqu fi. voilà nitu nitu diine wax dàqu moomu politique ndax dafa war a politique pour changer li fi nekk loolu laa lay wax. waaye bu mu jël. jàkka ji jàkka ji. xoola maanaam yaa ngi dégg bu mu jël jàkka ji. bu mu jël daara ji. bu mu de bu mu jël euh, maanaam li ñu tuddee maanaam maanaam maanaam atteya ñëw dugal ko ci langue politique pour soloo ko lool laa la bëgg wax waaye moom jëmmi bopp mën naa génn summi lam lam sol ñëw diggu ci ndax ndax li nga ko waxee laïcité laïcité ngeen di attewoo atte yi ngeen di attewoo du attey du attey lislaam du attey charia du atte yooyu te li nga wax fii tamit léegi ci kilifa diine yi nga xam ne buñ teeloon addu li nga wax comme yàqu-yàqute jamono di damay wax li fekk yaa ngi d'accord ne laïcité moom la ñu war a doxale ci réew mi mm-hmm. li yaa ngi koy d'accord yaa ngi dàq la jox liberté la jox kenn ku ne <laughs> liberté la jox liberté la la jox laïcité moom nag du lépp la ñu war a sànni moom laa ko am na loo xam ne dañ ko war a dëppale ak suñu liberté la lay jox maa euh, moom je sais pas xaw ma euh, façon plateau yi la wala je sais mais euh, fi mu accentuer débat bi ak solo si nga xamante ne moom mi ngi koy wax ñoom a ah? tu veux que ah, yàlla voilà léegi. yow da ngay gis responsable yi nga may nga may tooñ man. njëriñ bi muy wax nii pourquoi ñoom du ñu véhiculer yu mel nii. pour ñu poser débat yoo xamante ma cinq personnes ñu ma may ku nekk juróomi junni. da ngaa bëgg ma ma jël leen may leen juróomi junni. ñun bu fekkente ne dañ ñu invité. ceddo euh, dafa am question. baal ma ma baal ma baal ma baal rapidement waaye bu mu depuis fu mu bële non non ceddo jëlal sa <laughs> waaw du la tere li may wax daa war a wax dafa a wax mooy mun tey damaa demoon école jàngi affaire droit de manifestation mm. dëgg yàlla <laughs> non cours bu gàtt la dama ko laajte je ne sais pas si c'est inscrit dans la constitution du Sénégal mm-hmm. mais yi ma gis gisuma ko ci waaw article huit parfait mais fi ma sukkandiku après comme gisuma constitution parce que wër naa ko ba sonn gisuma ko dañu ne euh, chartu déclaration des droits déclaration universelle des droits de l'homme dañu consacré ne nit kenn waru koo teg toono wala fitna ci opinion xalaatam gis-gisam moo xam ci wàllu diine la wala lu mën a doon léegi nag loolu moo tax constitution dëkk yu bari consacré effectivement droit wu manifeste ñu ne nan lañ koy defee ak it maanaam lan la ko état di nangoo ak nan la koy bañee ni ñu koy defee mooy da ngay bind trois jours avant préfet wala maire parce que souvent ñoom ñooy ñoo ciy concerné li nga leen di wax mooy dañoo bëgg a manifester contenu manifestation bi da nga leen koy wax wax leen baal ba ceddo pare objet bi mhm. wax leen ñaata nit ñoo saytu manifestation bi personne physique yi nga xam ñoo koy saytu ñaata nit ngeen fay séentu ak seen itinéraire normalement sax warul am sax ay ay refus ak yu demee noonu mais dañu ne ci ñaari anam la ñu koy bañee itam mooy trouble à l'ordre publique ma ne leen luy trouble à l'ordre public ñu ne ma benn problème mu sécurité am wala circulation a dem ak dikku nit ñi mu nar cee indi jafe-jafe wala salubrité ñett yi bum ci nar a déranger rek boobu dañ koy refuser mhm. wala ña woote manifestation ba wax lu contraire à la maanaam neex naqari dañ koy def wala dañ fay bëgg a taxaw di saaga waa réew mi wala yu demee noonu lu contraire à la lii lañ lii lañ ma ci jàng. ñi nga lim lépp est-ce que ñi. <coughs> loolu je laisse ça à l'appréciation de tous les sénégalais yaa ngi dégg. Mhm. li ah, ci des mooy point bi ma bëgg a wax. Mhm. je suis allé voir un administrateur civil. moom dëgg la baayam administrateur civil la man ki ma yar administrateur civil la. Mm. de classe exceptionnelle. de classe exceptionnelle. de la première waaw fii mm. ci Gabriel Darbouzier Cheikh Béthio Thioune. alors je suis allé voir un administrateur civil ne ko waaw lu xew diggante administration bi. ak parti politique yi coow li dafa bari mu ne ma effectivement bi Ablaye Wade nekkee opposant dafa am benn localité bu mu mës a demander manifestation région boobu ca yooyu jamono. Mm-hmm. parce que souvent préfet bi mooy concerné su préfet bi. Mm-hmm. bu dee localité bi la mu bind préfet bi. Mm-hmm. ne ko diw. bëgg naa def yëngu sangam ak sangam on là on sur le terrain politique. Mm-hmm. daal ne attitude à tenir kilifaam tontu wala kilifaam laaj kilifaam parce que ñii ci pouvoir déconcentré lañ nekk mooy ministre de l'intérieur gouverneur ba ci sous-préfet ba ci maire bi. alors gouverneur ba bind ne Ablaye Wade daa bëgg indi fitna joo xam ne ci région bi parce que am na sax région boobu dafa frontalière ak beneen dëkk. ne am na sax ay ngànnaay yu mu jëlee ci dëkk boobu bu ngeen ko autoriser manifestation bi dëkk bi dana tàkk. te gouverneur boobu la mu doon wax du dëgg gouverneur boobu la mu doon wax dara mu ci. Mhm. alors Ablaye Wade di dox ba yilif réew mi ñëw fekk rapport boobu ci taabalam mu yuuxu ne ku def lii ñu ne ko diw sàngam la woon mu convoqué lu ko mu ñëw mu yekk ko lu mel ni xay ba pare def ko ci frigo ba pare jaare fa ragal administrateur civil yi. te administrateur civil yi dëgg-dëgg c'est les vrais commis de l'État mm-hmm. ñooñu ñoo xam administration ñoo xam ni ñu parce que nit ñi dañuy politique bëgg nguur di ko xëccoo waaye am na ñoo xam xamuñu nu état di doxe loolu administrateur civil yi ñoo ko xam. ñoom ñoom ñoo yor commandement territorial bi ñoo mën a doxal dëkk bi. Mm-hmm. loolu bi mu amee Ablaye Wade moo jur Macky Sall depuis lors. ci loolu rek la ñu ne y'a même pire encore fi mu ne nii ci situation boobu ñu ne parce que même bu ñu daan refuser manifestation mais nit ñi du ñu attaquer sous-préfet bi wala préfet bi wala yooyu on attaque directement l'autorité politique suprême de ce pays-là parce que dañuy xam ne souvent c'est pour des ordres politiques c'est-à-dire mhm. bu leen sous-préfet wala préfet bi refuser les autorisations dañ naan président moo ko instruire mu refuser ko ñu attaquer président politiser ko parce que am nañu quand yoo xam ne Euh, nguur gi da cee taxaw muy armée bi la grande muette. qui n'est plus muette. Euh, laisse-moi terminer Maïmouna Maïmouna Maïmouna Maïmouna laisse-moi terminer. elle n'est yar woon bi ngeen di wax la grande muette. Mhm. qui doit